eh gars yi finalement équipe nationale du Sénégal du football premier match am fii ci stade Abdoulaye Wade euh, mbir mi yëngu woon na jaxasoo xëcc ka dal mais finalement Sénégal bàyyi na lépp mu sedd xibaar nañ ñëw ci baax saak ñoom seen ak asalaamaaleykum amateur de foot yi euh, nuyu nañ leen ku ci nekk seen tur ak seen sant xibaar mercato football 29 août ci wàllu tàggat yaram waaye balaa ñuy dugg ci xibaar gi képp koo xam ne ni abonné goo suñu chaîne YouTube comme ni ko tàmm waxee rek aboneel da ngay bës euh, ab bouton bi s'abonner nga activer cloche di seetaan vidéo yi ba mu jeex loolu ngeen ñu mën a soutenir ci liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy def di leen jox xibaar matin midi soir kon nag gars yi bu leen ko def bu baax a baax di like ñëw ci xibaar mercato balaa ñoo ñëw ci match euh, euh, di euh, Chelsea Chalobah nag actuellement dafa war def visite médicale mais médecin amul foofee koo mën a def waaye du tee négociation yi mu ngi dox entre kooki di Bayern Munich ak Chelsea te mu ngi avancé tuuti visite médicale daal xam naa ni moom lañ bëgg déplacé ba euh, ban jour lañ ko war a mën a tegaat bu ko defee ñu mën a am en même temps kookee di médecin bu mu ko mën a defal waaye di la leeral que ni Pavard mi nga xam ne moom la Colobaa la remplacé ak lu mënti am bu Colobaa demee demul yëpp Pavard 100 pour 100. accord am na 100 pour cent dafa war a dem foofee ca Inter de Milan lépp mat na ngeen xamee ko noonu waaye di leen leeral que ni benn Pavard moomee Inter xam naa ni tey jii ci journée bi la nar dem signé fa contrat ñu war ko jënd lu tolloog 30 millions d'euros plus de bonus pour le français nga xam ne ne jamono ji daal moom bébétam moo nekkoon jóge foofee ca Bayern Munich te dafay jóge incha allah lépp dina mat chèque foofee ca Serie A italien bala ñuy des ba léegi kookee di Bakayoko mën naa ni dafa nar a jóge foofee ca PSV Eindhoven li waral loolu joueur boobu napolitain boobee ñu naan ko Lazano dafa nar a rejoindre PSV Eindhoven te foofee il faut ñu soxla euh, place espace bu ko defee ñu ngi xalaat kookee di euh, Bakayoko moom espérons espérons mu dem foofee ca Napoli tout cas yu bëri taxaw nañ pour war koo mën a jënd ngeen xamee ko noonu ka euh, club bi jënd muy Everton di kan kookee di Beto doon le portugais Everton nag mu ngi ko jëndee ci lu tolloog mën naa ni trente millions d'euros Udinese foofee ca Serie A italien ba nga xam ne fa lañ nekkoon sànq fa la jugee mu ngi noonu doon joueur boo xam ne ñu ngi xaar ah, mbir mi nan lay demee naka la nan la nar continuer ak kookee di Everton bi ñoom Idrissa Gana Gueye ba xam dina ko réussir ou pas. Manchester United nag considéré na gardien de but boobee ñu naan ko Altay ah, Baye Ndir comme le jeu gardien bi nga xam ne war na leen mën a jàppale war a jóge foofee ca ah, Fenerbahçe ñu ngi ciy liggéey bu baax a baax pour jéem a conclure seen accord ak club turki boobee xool na la war a mën a ñëwee en tout cas daal mbir ci 7 millions d'euros ci la ñuy liggéey noonu pour le gardien de but war a doon deuxième di Manchester United ci ginnaaw Onana bi nga xam ne jamono ji gars yi ñu ngi koy critiquer ah, bu baax a baax ñëw ci xibaar baax saa seen joueur boobee di Clément Lenglet le français ah, moom nag dafa nar a jóge rejoindre club boobee di Aston Villa discussion yi avancé na bu baax a baax a baax ñuy xaar mbir yi lay demee naka la pour mu war faa mën a dem rejoindre en tout cas xam leen ne ne ah, kookee di Clément Lenglet li des ci mu dem rejoindre Aston Villa dara bëreetu ci ngeen xamee ko noonu waaye doon foofee ca euh, Liga espagnol mën naa ni dafa war a rejoindre kooku di OGC euh, mën naa ni Lille Lille euh, LOSC la nar a dem rejoindre ci 24 heures yi daal discussion yi avancé na bu baax a baax ñuy xalaat mu dem fa doon en tant que attaquant pointe bu Ligue en ci club boobee di Lille négociation entre AS Monaco ak kooku di Fulham continué na bu baax a baax ci kooku di Adara bu jógee foofee ca Fulham en tout avancé na ñu ngi xaar nan lay demee faa mën a ko noonu le jour boobee ñu naan ko Jet Spence nekk foofu ci club bu ñoom Pape Matar Sarr nag pare na pour euh, moom pare na pour dem Leeds United en tant que prêt euh, prix bi ci prêt bi mu ngi war a tolloog un million euh, de livres ci la prêt bi nar a moom nag pare na pour dem fa ñu ngi xaar mbir mi nan lay demee ak naka la lépp lu ci mënti am di ngeen ko jot ci njekk ak teranga West Ham nag dafa jël décision arrêté discussion bi mu doon def def ak kookee di Manchester United ci Maguire nag man yu parewul sax pour aale ko waxuma la mu koy jaay pour Maguire moomee ba tax nag kookee di West Ham génn ci mbir bu yàgg yàgg loolu mooy génne xel ngeen xamee ko noonu jóge foofee dem ci équipe nationale du Sénégal moom mi nga xam ne dafa war a football match moo kookee de Rwanda foofee ca Kigali nag match bi normalement fii lañ ko waroon footballee nag Sénégal moo war recevoir nag aller bi Rwanda moo waroon recevoir mais nag dañoo gis ne ne Rwanda seen stade bi homologué homologué homologué wu ñu ko woon ci noonu nag ñoom ñu demandé pour football ko fii ci Sénégal ngir mën a couvrir match aller bi ci noonu Sénégal nangu ci waaye ñu tegaat ay conditions yoo xam ne retour bi bu fekkee ñu homologué seen stade boobee ñu dem football ko ci seen stade bu mel ni que aller bi moom moo doon fii Sénégal retour bi doon foofee ca Rwanda mu ngi noonee mu doon mbir boo xam ne déggoo woon nañ ci waaye ñu dem ba benn moment bi ñoom Rwanda di demandé pour match bi ñu football ko foofu Sénégal ñoom lànk ba tëj suuf ne match bi waaye discussion ba mu avancé ñu dem ba ci biir gis nañ ne Sénégal bàyyiwaat na loxoom match bi daal d' après Abdoulaye Thiam finalement foofee ca Kigali Rwanda moom lañ ko nar a mën naa ni loolu nag du doon nouvelle bu neex pour Sénégal déplacement boobu dina métti et tout mauvaise la nag le fait que ñu football fii match. Euh, enchaîné ko football contre euh, kookee di Algérie taw féex la doon doon say joueurs déplacement yi bëri si ñoom dinañ mën a nekk ci forme pour football mais le fait que ñu demaat foofee ca Rwanda ñibbisiwaat le le le le 10 football la entraîné daa am le onze wala noppalul football le douze c'est un difficile pour l'équipe nationale du Sénégal ci déplacement beeg ñoom moom boo xasee ko jox danga koy respecté waaye buñ xalaatoon ne lay demee peut ñoom duñ jël décision boobee ngeen xamee ko noonu ma leen xaar ci commentaire yi nan ko gisee en tout cas daal équipe nationale du Sénégal am nañ confiance ci moom ñu dóor Rwanda jaar noonu wër Algérie gën a am confiance pour waajal suñu Coupe d'Afrique des bi war a xam ne moo war am fële ca Côte d'Ivoire ca 2024 mu ngi yi loolu moo nekkoon xibaar gi tey 29 août ci wàllu tàggat yaram képp koo xam ne nii abonné goo suñu chaîne YouTube duñ def lu wax la nga abonné ak ci weglos di seetaan vidéo yi ba mu jeex loolu ngeen ñu mën a soutenir bu baax a baax jàmm ci yéen gars yi ba beneen yoon ci yeneen vidéo merci à vous

ومما يجعلون ما علينا سعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرحيم كانوا من آياتنا عجبا استوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا على yaatu macha allah.